askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu defaxu nag lu ay di jàmbat coowul CREI yi ci xët mu njëkk yéenekaay bi di réew mi quotidien ñu ni nag li ci réew mee jara waxtaane ay da njong ñu ni nag ci kanamu juge bi Aida war a xamuk atteem ak péeteem nu muy mujje ci yoon ci lañ naan coow nag ci la turbine yéene kay bi ba tey di ñu xamal ni moom ci xëtam bu njëkk ni ñu nag coowul CREI yi ba tey may Meïssa wadd ak ki nga xamante ni mooy Alboury ndaw ñu ni nag coow li war naa amuk péete ndaxte atte ba CREI yi fëse ne na ko daal di koy amal ni ki tey waaye lu mu ci mënti doon daal PDS di parti démocratique sénégalais bu ñu desandeeg ñoom ba tey ak Lamine Ba ma ngay xamal ni ñu départ xamante ni mooy position Serigne Mbacke Ndiaye wala ki nga xamante ni moo di ay dëmbooj yëngalu leen nee na ci prix du dara ca lañ xool nag ca pegg ba yéenekaay bi di la tribune ba tey di ñu xamal ni ñu booba la jamono nag APR ndaw ña taxaw nañu temm nag ni dañuy falaat Macky Sall ah ca premier tour 70 pour cent de la ñu woote waaye ci kàddu yi ki nga xamante ni moo di Abdou Mbow ma ngay dellu nag di xamle ni. ñaareelu tour de jigul président noonu ci ay kàddu ndaje ma nga xamante ni ndawi APR di ko gère doon nañ ko amal waaye nag farbangom ma nga yëkkati ay kàddu ni lum ci mënti doon daal Macky Sall juróom-ñaari at di sept ans yi ñu ko falee lay def mandat boobu ngeen di dégg sax de moo daal di xàjjale nag APR bu ñuy jaaree ni ñuy jaar nale le grand place nag ñun la ñu taamu xët ci yéenekaay bi ci xët mu njëkk APR buñ ko limee danañu wax ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr moom nag tong gi nga xamante ni moom la amee ak Khalifa Sall looloo jara lijjanti waaye mbéjum kanam borom a koy fajal boppam ñooñu ñoo di ñan moo di nag ay jege ñaale xalifa Sall ñoom nag nee nañu Diouf saar bu taxawee ne xalifa Sall deful dara ci Dakaaru moom mooy gisub jant bañ ni duñ ñoom nag li nga xamante ni moom la ñu bëgg mu tege ko nele te nag daal di teg bët ci li nga xamante ni moom la xalifa di def naam nag lu ni dàng fàng kenn dootu ko jeex ci la ñu daal di dem nag ci la solo yéenekaay xëcc ko ci xëtam bu njëkk bu ni ñu foo demee ba jam ñaajo da nga fa fekk jaloo ju Macky Sall def pôle urbain ba de ñu ni logements sociaux ya ma nga ni fa xas de yéenekaay bi ba tey di ñu xamal ni ñu élimaanu jëwriñ yi di Mouhamed Boun Abdallah jonn moom it de ma ngay daal di wax nag ca la nga xamante ni jéego yi ñuy dox ngir daal di yaxanal askan wi ñëpp noonu ci lañ ne coow nag ci yéenekaay bi nga xamante ni moo di Le Quotidien mu daal di addu nag ci lu jëm ci 4G bi RTP de bu moywul ñu ni dërëm dootu ko dese nag ci ay pouvoir mu mel ni xoot lenn waralu ko nag lu dul 4G bi numérique baa nga ca biir ñu wax nag ci wàllu numérique passage ba nga xamante ni nag ña ngi koy xaar ah mu ni nag Sénégal fi mu toll nii 17 juin de mooy àpp noonu ñu daal di tuxu nag ci yéene kay bi nga xamante ni moo di direct info yéen daw leen coowa waaye cadre Sonatel kenn du ñoom yéene bi ni ñu dañuy soob rek li nga xamante ni nag moom la ñuy def du combat ci xët mu njëkk yéenekaay bi waaye jàllal ba ca biir tax nag nga daal di xam li nga xamante ni moo wund coow li ci lañ fa jóge nag daal di toxu ñëw ci yéenekaay bi di libération mu ànd ak ñun daat ni cëpp fi nga xamante ni moo di aéroport Léopold Sédar Senghor moom nag de seetlu bi nga xamante ni moo am mooy di doom joo xamante ni rax na Sénégal naka noonu doomi Amérique waaye nag de la ñu xamante ni moom la ñu nemmeeku ci moom moo di lan mayel bët yéenekaay bi ci xëtam mu njëkk di ñu xamal ni daal ah am nañu ñaaw njott daal ni am na loo xamante ni xew na ci digganteem ak ñi nga xamante ni ñoo di islamiste radicaux yi waaye yemul ci loolu espion sax lañ ko jàppee buñ nee nag aéroport Léopold Sédar Senghor di ndakaaru ndakaaru Jal Diop am borom moo di kan kooku di Abdoulaye Makhtar Diop ku yàbbu ne xalaas ndaxte yéenekaay bi di laas ci xëtam bu njëkk la ko xam le ni nag àdduna ca làmb ja nee na Balla Gaye numéro 2 doole desatu ko te lenn waralu ko lu dul dopage bi nga xamante ni am na ci arène bi mook guy gi ñu ñu desandi ci làmb ji ba tey enquête yéenekaay sulleeti yeneen i xibaar nee na Eumeu Sène de amul lu muy nëbbëg lu muy làq-làqal de lépp la wax nag ku ko doon xaar mu sëgg ak tàkkusaan digganteem ak ni bu la yeboo nga xaddi ndaxte nee na du am waaye nag digganteem ak Modou Lo wala Bombardier am na lum ca bëgg yamul ci loolu yéenekaay bi dem ànd ak Eumeu seen ca Gambie noonu suñu làmb daal di teew ànd ak bala Gaye 2 mi nga xamante ni fas yéene na nag daa di amal li nga xamante ni moo di gàddaay fu mu jëm moo ko xam kañ lay ñëw moo ko xam ci lañ tabbi nag ci yéenekaay bi nga xamante ni moo di Sud Quotidien mu fësal lu doy ci xëtam bu njëkk kaw tef lañ ko mën a tuddee caay caayu xale yu jigéen yi ma leen doon wax fësal na ko nag ci xët mu njëkk yéenekaay bi yamu ca de nee jigéen jigéen ñi nga xamante ni dañoo am jëkkër ba pare am far lay waxal am sa magasin ku koy sarcel nag nangu ko ndax marchandise doy na waar am déet lum ci mënti doon kaw tëf gi weesuwul lu dul jigéen ju taxaw jàkkaarloog sa borom kër di ko lamsal da koy xool te naan ko nijaay dama am far bu kenn laaj lu mu cay teg rekk de li di comp as lëf ci yéene kaay jaa ngeen jëf